Je suis euh, euh, on a une communauté de qualité de 3 euh, b vraiment nous les parce que la question de l'union, mhm. voulez-vous parler du Coran qui est un projet de société exemple bâtir un homme exemplaire bâtir un homme modèle pour une société idéale un un citoyen

kilifa de boo ko seetee mu mu jox la cadeau je pense que du doon cadeau boo xam dafay anodin mm-hmm. te ñu bëri si ñoom boo demee am na ñoom dañu dañoo jox sijaada mm-hmm. ñenn ñi jox la alxuraan mm-hmm. maanaam boo toogee ba mu wéet ba jaxasoo ba kii te musulman nga jullit nga rusoo ko nëbboo ko kafe euh, woo ko boo toogee ba mu jaxasoo ubbil kaamil bi nga toog nga jàng mm. sijaada gii ma lay jox boo demee ba suuf sedd mbir mi jaxasoo na mm. jullil ñaari rakk nga tàllal sa loxo sunu borom nga ñaan mm-hmm. Mm-hmm. alxuraan lépp a ngi ci biir lépp mm-hmm. lépp lépp lépp a ngi ci biir muslu ay ñaan histoire lépp lépp a ngi ci biir alxuraan mooy livre bi gën a complet ci àddina bi kon kooku bu la ko joxee je pense nga ci def référence di si delluwaat Euh, loolu la lay bëgg ñaax bu la joxee sijaada tamit nga faratal say waxtu julli juróom mm-hmm. waaye tamit euh, boo jaaxlee nga tàllal loxo sunu borom te xam ne fii nag même kilifa bi ngay tàllal di ko ñaan sax moom yàlla lay ñaanaat yàlla rek a jara wóolu moom moo jara ñaan macha allah soxna Ruba mu wax nañ si euh, alxuraan bi macha allah léegi ñu la visite à Tivaouane aussi mm. vraiment gis nañ ko xam nga waa Tiwaawan tamit gis nañ fa visite bi. dafa amoon benn particularité. dafa dafa amoon benn particularité te xam nga lu tax. voilà man pour man bokk na ci ñi nga xamante ne ñoo gën a jël ay coup ci suuf Macky Sall ak politique ak ah. euh, temporel bi ak spirituel bi. parce xam nga lu tax. <laughs> parce que dañu doon ba benn moment euh, mu am fa ci kër yi. Mhm. ñoo xamante ne dañoo jël parti na buñ ko. dëgg la te xam nga man dama koy faral di wax souvent ma ne bu la yàlla cëralee. Mhm. nga doon kilifa diine. Mhm. nga am benn taxawaay woon da nga koy taxaw pour man li la yàlla cëralee ëpp. sax président de la république. Mm, ancien tey jii muy Touba kenn du ko wax tey jii muy Touba di Tiwaawan di Yoflaayeen di Ñaseen. Mm-hmm. di di Medina Baye. Mm. di lew na Ñaseen. kër yooyu yëpp ngay wax yàlla li mu leen moo ëpp téeméeri junni li nga xamante ne mooy euh, mooy mooy mooy ñu yàlla dénk mi xam nga tax loolu. Mm-hmm. ñoom tey ji ba fépp fu ñu mën dem ci àddina bi. ak mm-hmm. fépp fu ñu mën di nekk bu ñu dajee koo xamante ne tey jii. seen taalibe maam la woon wala seen taalibe waajur bu góor rek tey ji am na cër bu mu leen jox boo xam ne du ko jox sax doomu Macky Sall wala doomu mm-hmm. doomu Bassirou Diomaye wala keneen bu ko xool danaan xool rek ah kay doomu président la bàyyi na mu dem mm-hmm. waaye kii dañ kii do nga ne ah am na ñu demee sax dañuy dañ koy dañ koy tatagal jox ko cër. c'est vrai loolu respect boobu noonu moo ëpp lépp. Mhm. et malheureusement su Macky Sall dafa dem ba dugg ci kër ga. Mm. Euh, jaxase te du Tivaouane kese du Tivaouane kese mais Touba da nga noo gis ñoo xamante dama doon day pose débat naan kii du du Mbàkke Mbàkke. est ce xam nga loolu. Mhm. Touba dañ doon dem bay joxoon ay Mbàkke Mbàkke ne kii du Mbàkke Mbàkke. Mhm. pourquoi parce que dafa far pastif ñu dem bay joxoon ay Mbàkke Mbàkke di leen teg lu metti lool ci dëkk bi. Mm. parce que dafay jàppale Pastef loolu politique moo dem ba dugal ko Tiwaawan dem na ba gis nga taaliba yoo xam ne presque bu seen sëriñ bi wax sax dañuy fay bi mm-hmm. parce que politique bi dem na ba am benn position bu mu am ci kër gi ah, am na sax ñu doon wax ne léegi maintenant ñun ko ñoom koy nee na ay gens ay Michel lañu ñu tudd <laughs> ndax la euh, l'église moo jëloon euh, ay position waaw xam xam nga loolu tey ji dafa demoon ba vraiment dund nañ fi loo xam ne yàlla ñu dund ko parce que kër kilifa diine jël nañ ci ay coups yu mm. bëri yoo xamante ne après finalement euh, boo demee cinq ans si ginnaaw wala dix ans si ginnaaw mosu ko kenn xalaatu woon ne mm-hmm. Sénégal doon na toll ji fii mm-hmm. nit dañuy dem ba invité yenn taalibe ñu jël seen ay responsabilité mm-hmm. te loolu amul woon bu njëkk ba malheureusement nag li ko indi politique a ko def mm. parce que dañuy def seen i ay calcul def seen ay mathématique bu mu cóol ñu daw ci sëriñ bi léegi bu ñu dawee ci sëriñ bi euh, jéem a sàkk ci moom dimbal sëriñ bi bu waxee taalibe du ñu comprendre mais dañ naan sëriñ bi daa far wala dafa dafa def nii bu ko defee nag jafe-jafe commencé am ñu gis ne voilà sëriñ bi waa ji la fi nekkal wala sëriñ bi dafa faree fii comme dafa far fii nag man léegi man faruma foofu mm. donc léegi man dontu sama sëriñ ci côté boobu problème am et puis moom si ay jeunes yoo xamante ne jeune marabout yoo xam ne du ma tudd tur ils se sont laissés emporter mm-hmm. di yëkkati ay kàddu yoo xam ne rafetul dëgg la kàddu yoo xamante ne des su ko yëkkati ci koo xamante ne sa waxuma la jullit sax waaye ku yàlla di bind nga yëkkati di ko teg ci nit mm. tey ji yàlla dafa ba ñoo ñëw nekk président nga a taxaw jàkkaarloo ñu looy wax gàcce daf lay rey moo tax bu la wormaal la nga doon kilifa bokk ci askan wu baax lépp looy wax danga ko war a xool xoolaat ko parce que wax bal la bu génnee rek moomatoo ko tamit di tëddee njaaxaanaay mm. sa biir euh, kër gi nga nekk noonu yaa ngi taxaw di défendre Amadou Ba mais Amadou Ba mi ngay défendre wala mi ngay jàppale est ce que xam nga ne sa biir parti bi am na koo xamante ne tey jii xaju jaaruwul sax ak Amadou Ba yow yaa ngi taxaw di défendre Ousmane Sonko di ko jëlal fee et mais est ce koo xam ne bëggul sax gis Ousmane Sonko si photo mm. kon lan moo la siy dimbali nga nekk ci dëgg bu ñuy tooñee nga leen yéen yéen ngi tooñ bàyyi leen li ngeen def bu ñuy nekkee di tooñ nga ne yéen yéen lañ nekk tooñ bàyyi leen li ngeen def dëgg googu boo ci nekkee say say say taalibe si ñëpp dañuy ànd ak yow. Mm. mais malheureusement su Macky Sall gis nañ fi loo xamante ne ñaanuñu yàlla dundati ko ci kër kilifa diine yi <laughs> parce que jaxase na ko fa dugg na ruube fa ñii far fii ñii def nii ñii am ne ah, gis naa ci kenn koo xamante ne sax def na ma euh, sunu famille ñu bëri am nañ ay passeport diplomate man dañ ne am parce que Sonko laa faral. sérieux ngeen ne ma wax la ko demoon na ba toll foofu mu samay samay frère am nañu ay passeport diplomatique man ba léegi aw ma ma ko lu tax mu ne ma parce dañu ma Sonko laa faral man damay xeex kër gi ki ñu mel demoon na ba toll foofu euh, pour vous dire que mbir mi tolloon foo xam ne ñaanatuñu yàlla mu yegg fa dëgg la ñaanatuñu yàlla mu yegg fa Moustapha euh, ñu génn si li nga xam ne moo nekk euh, visite président